asalaamualeykum MC Thiam forum maa ngi nuyu ñu nekk si forum bi yëpp ñu nekk si réew mi ak si diaspora bi man la MC Thiam Junior bëgg a ñëw pour waxtaan ak réew mi waxtaan bi mooy waxtaani leeral because uh, maa ngi dégg wax bari si réew mi fii uh, du nga xam ne jar na ko jarut ko. si mbiri KMC bu nga xam ne meew bi mu ngi dem tournée mu ngi am dialogue bi di municipality mu am kàddu yu mu jël mu wax London Corner Ward di wax fan la fekkee KMC jamono bu mu nekk meew KMC. wax na fa way nga xam ne am na mel ne neexut leen wante tam ñu bàyyi xel ne dafa am nga xam ne tam fu mu jaañ wax ko si réew mi nguuri Jawara Jawara moo nekkoon président si réew mi fii kenn mënu koo fàtte si réew mi si lu baax ak si lu foog ne tam baaxut si nguuram loolu tam mooy jàmme tam nekkoon na président si réew mi dina wax lu baax si moom ak luñ foog tam lu baaxul si nguuram bëgg doomi adama nit rek nga in foog mu am metam tam wax de yalla baax def nga lu baax def nga ci baax def lo ci xamni tam amé lu d'accord ci lolu nit ñëpp anda yow ci benen bir président Barrow tay mo amé moy nek ci bopi rew mi tam dina fi génn tam den wax lu xamni lu baax si moom ak lu mom tam ne nah. ci mom ci nguuram lolu moy wante da maa ngi ñaan affaire xeet dañ ko yuma génné sun politics o odo yu dégg fi di o jolaay man ma wax yeen ni suma yaay jola la man doomi jola la pere Casamance nekkul jola rek ñoo fa Casamance amna sosé amna jola amna pol kon waru ñu dikal wa Casamance rek ay jolar leen dedet man dama ne politics ñu jaay agenda jaay suñ programme mo gën ñu dugal affaire yi ci politics lolu dañ ko ra daxa ci rew mi fii Tali souda meew Tali souda mama bu góor waa Casamance la presso c'est wante il faut que nga xam xewoon na si réew mi tam fu ñu ñu wax ko taxut ñu xeeb kenn taxut ñu yab kenn ba waxuñ si wax daf ko jarut dama ne soo bëggee am kart si elections wax naa ko démb King FM jaarale ko si yoon. sooy ut place jaar ko si yoon élection fa nekkee doo sona boo sooy ut place nga jël ay tuumal jël ay wax xam ne yaa ngi koo wax pour yàq xelinti bu ba fa toogee si ngay nekk. waa Nooto alliance suma ay xarit leen seen kilifa yi suma xarit leen damaa waxtaan naa ñoom every day ñu si ëpp seen kilifa yi. lu ma bëgg pour ñu ngeen bàyyi seen xel bu baax a baax wax yi yi di dugal nii yëpp ñoom ñoo ko wax ñoom taayit naaw léegi dem nañ si baro lu gaa doon xeex yëpp pour mbiri jàmme la wax xeexaat nañ ko fu mu nekk nii la dégg nga ñu waxaat mbiri Arona Jaata dafa war a am justice la ñu waxaat ko waxaatuñ ko. ana joint communiqué bu Yaya Jammeh signoon fi ak UN ak EU ak Gambian government ba ñoom ñu demoon protest di march si aaj bi ba si ministre of justice joxe joxe seen pétition la am na any follow up right na and right now ñu ngi si système bi la def na any follow up about that joint communiqué ñoom nguur bu gaa nekk léegi fu mu nekk nii with alliance ni ngi pare pour ñu Yaya Jammeh court la def nañ effort stop loolu ne déedéet he was a former head of ko bàyyi mu ñibbisi si mu ñëw toog si réewam wala ñoom den foog ne ne no to alliance du am candidate KMC no to alliance dañu am candidate meilleur candidate KMC dañu taxaw candidate KMC kadi xam naa noto alen ɗum sanel kadi ɗi npp ci réew mi yëpp ngeen jaay suñ ajana jaay suñ programme lu bari mu ngi xew si kansul si si réew mi fii wax naa ko démb King FM kenn mënu laa tegal FVN si leer dégg naa dégg naa naa lii mooy xew si Kansu fekk sax loolu nekku fa man soo gisee ma gën a respecté li Bensouda man si Thiam bi first solution bu gaay teg bu mu winee dem si Kansul first meeting ni Kansul general Kansul meeting yaaya moo nekkoon lawyer Kansul bi mu pass ñu génnee yaayam mu nekk mayor Kansul mu génnee yaayam foofu. moom moo paas resolution bi because mu ngi bañ conflict interest nekka fa because moom du nekka mayor yaayam nekka lawyer council bi parce yaayam nekk na lawyer council ay ati yàgga si council bi bu mu ñëwee dafa paas resolution ñu génne yaayam foofu kon kooku jar naa bàyyi xel bu baax am ñu nga nekk tey dañ faa bàyyi seen dañ faa bàyyi seen waajur yi takafu insurance bu gaa di wax noonu moo tax ma ne jot na ko xamele ne yaa ngi si municipalité bi wala foo munti nekk nga dégg ñuy wax mbir dama nga laajte dem naa ba kis yëpp takafu insurance bi mu ngi fa mu ngi fa ñëw tuuti teen la gaa yi doon di liggéey ak KM si jamono boobu xel kii xel nekk am meew sax. Royal Finance bu nii mosuñ jël kees mosuñ jël benn foofu ak ñooñu mosu daa am yooyu yëpp ay ku nekk ngay fabricate pour taxal nit élection dafa yomba demal nga jaay sa agenda ba tribalisme ne war a génne si réew mi politique bu tilim ne war a génne si réew mi nu mu yàgg ñaari yoo ñetti weer mu jeex ñooy daje si ñeente yi si xew yi si dëj yi fu nekk kon ni rafetal moo gën pour ëllëg nit yaay decide nit yaay xool ku leen nee ñu ànd moom ku leen ne ñu sànni ko karta du forcé bot réew mi fii léegi soo waxee ñu ne la yow yaa ngi dimbale UDP au oh, UDP nga nekk ëpp ñu dëkkal la fa xam ne dëkkuloo fa pour ñu noppi loola man dama ne kenn mënu maa noppiloo si réew mi fu ñu dëkkal ma man ku ma xam-xam ne GDC la su ma bëggoon a bàyyi si tey man maa ko wax kenn du ma ko waxal. ba dëgg su ñëwee de dama koo wax jiidi si lan la taxawee dëgg la taxawee rôle opposition si réew mooy nga xool account di government bot soo waxee ñu ne la yow fii nga fii nga nekk xanaa kon dëgg bi si UDP la nekk kon ku wax ñu ku wax dëgg ñu la yow UDP ngay farle UDP nga bokk wala activiste nga. te réew mi mooy force balaa political party parce que yi ma jaay dégg ne Amath Ba lu mu wax si mbiri tribalisme euh, mbootaayu tribalisme si réew mi fii xeeti mbootaayu xeet si réew mi fii association nga xam ne ñu ngi ko registré ay xeet sangam xeet sangam mu ngi ko wax pare ñoom ñoo njëkkee yób si xeet ay xeet si si si State House musu daa am history Gambia benn personne musu isi ay xeet yu bële State House bu ñu waxtaan musu daa am mu ngi am seen nguur bi parce que xam ne loolu dafaa divide réew. kon loolu laa bëgg pour ñu wax mu ñëw waxtaanaa doomi réew mi ñu bàyyi suñ xel bu ñu kenn nax si mbiri tribalisme ku bëgg a dem sànni dama nga sànni bis on programme ko ko am ak kooku lu mu pare pour liggéeyal si municipalité bi moo gën si ay xeet di ay xeet loolu lu ñaaw la maa ngi ñaaw lu jërë ngeen jëf.